ndaje bi tey li ko waral mooy éleveur département de Mbour dañ am jafe-jafe jafe-jafe bi nag am nay at yu bare bare bare bare ndax réel wu réel département Mbour eh, businessman agronome ay agro business ay tubaab at yu bari ñoo ngi ñëw fii di saake saake suufu réew mi ku fi si nekk président comité rural wala nga nek maire dañuy dañuy caaka caaka suuf bi jaay suuf bi be jek tak jaay ko ay hotel jaay ko ay tubab jaay ko ay nar jaay ko ay dok ndem population département bour nak dem na be nangou nañ seen suuf be jek na tak man nak en tant que syndicat des éleveurs ñu woo na ma ñew soutenir len dama ñew fi di wax ak gouvernement Sénégal di wax ak président de la République comme que moom moo njaboote ñëpp moom moo njaboote réew mi il faut ñu wax ko lii xew ci département Mbour dem ñu ngi woon ci département Thiès jafe-jafe boobu moo fa am tey fii ci département Mbour gis ngeen fii ci àll bi éleveurs yëpp ñu ngi fi tey population Mbour koom-koom bi fi nekk seen doom ñu ngi dem Barzak Barzak ndax koom-koom bi fi nekk ay tubaab ay doxandéem ay homme d'affaires ay businessman ay sàcckat ñoo ko jël caaka caaka seen suuf ba seen suuf jeeg takk seen jabar mu amuñ fu ñu liggéey seen doom yi amuñ fu liggéey amuñ fu ñu sàmm président dara Macky Sall ñu ngi lay kamal ne Mbour département Mbour seen éleveurs yi amatuñu dara dara dara dara suuf dara léeg-léeg lañ tey am yaakaar mooy forêt kalaas bi fi nekk forêt kalaas bii nag seen bakkan lañ ci teg. ndax ay doomu sénégalais lañ ay citoyen lañ ñoo ngi def li leen war ci nguur gi lépp fii yow rek yaay fi gagné depuis bi nga commencé ba léegi bu imp ñëwee ñu fay bu duggooti ñëwee ñu fay bu jënd crédit ñëwee ñu fay imp lépp lu ñuy def même bu dee seen dund ñoo ngi fay imp foofu bu ñu wootee téléphone ñoo ngi fay imp foofu mu ngi dem ci kees nguur gi léegi nag foore bii dégg nañ benn maire bu nga xam ne maire Sandiar Serigne Diop mu fii ñëw di sàcc suuf bi di ko jaay de ñun ñu ngi wax forêt Kalaas amul benn nit bu am ci cañ-cañ pour joxe ko pour dul président de la République président rek moo am cañ-cañ am cañ-cañ Diop maire amul cañ-cañ bi eaux et amul cañ-cañ bi eaux et forêts lu ci am mooy mën na gis kuy liggéey. defal ko contrat ñun nax loolu yëpp nax président de la dañ bëgg foore mbuur bii la ñu dese. Ah, éleveurs Sénégal yi yëpp amuñ fu ñu am sàmm. Ah. surtout département Mbour amul fu ñu am sàmm dañ bëgg yow président de la République foore mbuur bi nga déclassé ko nga def ko ranch. ranch bu nga xam ne foofu la ñu rawale suñ jur yi mu am ay mbalk am grillage am miir am lépp kenn du ci dugg. ndax réeliwul mbir consommation réew mi li ñuy lekk ci yàpp li ñuy naana ci soow kuy ngente kuy gàmm kuy def màggal ak loo mënti def suñ jur yi ñun sàmmkat yi ngay njëriñoo du jur bu ñu yeew tey fu ñu toll tey ci Sénégal abattoir boo mën a dem suñ jur ñun éleveurs yi lañ fa kon consommation réew mi ñun éleveurs yi ñoo ko yor ñun nag suñ secteur bi du seson du ay weer 24 heures sur 24 heures c'est suñ secteur bi mu ngi consommé at bi secteur bi mu ngi ce qu'on nag lañ fi wax tey wax nga maire bi fi maire Sandiara di bëgg jaay suuf bi nii bakkan mooy fi rot waaye kenn du À partir d'aujourd'hui, dans les jours à venir, nous avons prévu de déposer une demande d'autorisation de marche au niveau de la préfecture de Mbour, aux agriculteurs comme éleveurs, nous allons manifester notre désaccord encore une fois vis-à-vis de ce projet-là. Parce que c'est un projet qui n'a pas, été, euh, pas été concerté au préalable avec les populations. Parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, même si les maires étaient d'accord, même si les maires étaient d'accord, s'ils ne consultent pas la population, nous nous serons devant eux et nous allons nous opposer à ce projet-là. Nous n'écartons rien vraiment sur la lutte. parce que, je vous dis, nous sommes prêts à laisser nos vies. Donc, la grève de la faim, on peut en mourir. Les marches, on peut en mourir. Donc, vraiment, nous n'écartons rien pour, pour s'opposer à ce projet-là. Maintenant, tout compte fait, nous n'écartons pas des négociations. Parce que aussi, nous sommes des humains et nous savons ce que nous voulons. Nous, nous, nous, nous, nous engageons Serine Diop s'il veut, si ce projet-là est intéressant pour les populations. Il n'a qu'à venir s'asseoir avec eux, pour les expliquer. Nous, nous allons défendre les arguments pour lui dire que ce projet-là, ce n'est pas bon pour la population et nous n'accepterons pas ça.